Sénégal ñi wax te xamuñu moo ëpp ñiy wax benn ngoog mbir mi itam ni ko yàlla defaree mooy du waxi neen non seulement dafa am ay firnde mais ci biir tribunal la xewe kon maître dañ lay bàyyi rek nga waxal ñu exactement tribunal boobu noonu le premier juin dëgg-dëgg lan moo fa xew la fa xewoon daal lii la man avocat am naa ay client yu may défendre bis boobu li ci am solo mooy li procureur bi wax procureur bi bi muy wax du woon man de ak sama client moo dérapé du ma rentrer dans les détails ba tudd Serigne Touba noonu la mbir mi demee tuuru Serigne Touba mi ngi jóge ci làmmiñu Seydou moo ko wax bi mu ko waxee xam nga ni murit fu ko tudd. man maa jóg ni ko monsieur le procureur turu sëñ Tuubaa boobu ngay tudd tuub ko xam nga lu ma kii mu ni ma du ko tuub duma ci dellu ginnaaw wax na sax je ne changerai pas une virgule ba mu waxee loolu man mii maa jóg hmm? ni kuy taalibe Serigne Touba du ñu nangu fii ñuy tudd Serigne Touba di ci teg loo xam ni ñimewuma ko sax man xalaat ne kon nañ génn ñu daal di génn bi ñu génnee fu ñu jubal Touba loué suñuy oto ñëw Touba donc pour bañ a sori ci loolu euh, euh, kon mën naa ko yemale foofu wax ji procureur Diawo moo tudd Serigne Touba mu naqariñu ñu ni ko dindil wax ji mu ni du ma ko def. lu wax ci Serigne Touba. du ma ko wax ndax dama koo ñimewul te laaj naa sax ñu ne ma lislaam nettali yu mel noonu da nga ciy am yow tam bàkkaar li wóor ba wóor mooy tudd na Serigne Touba li wóor ba wóor gis ngeen ko ci vidéo yi ay nit ña nga fa doon daanu est-ce que nit dana daanu te amul lu ko naqari du lu ko gis. vidéo yaa ngi fi ndekete yoo ñun bi ñuy toogee ci biir tribunal bi wax am na ñu ñu doon filmer man yëguma ko ba coow la ñëwee ba ca guddi ga lañ ma ko envoyé yor nga ko jox naa la ko kon nag coow lii këyit yépp a ngi fi vidéo yépp a ngi fi joxe naa vidéo yi nit ñi gis nañ ci seen biit ni am na ay murit yuy daanu bu dëgg gis nañu yeneen i kayit yu ñu soxla ojo yi ñu def ñoo ko soxla te lañu wax wax ji tënku na ku seetaanoon la Walf Fadjri teg te mu nekk fii clients yi ni ñoo fekkee jaaw tudd Serigne Touba maître Babou jóg ni ko noppi bul tudd Serigne Touba mu ni maa tey du ma ci dindi dara mën naa ko yemale foofu li ci des daf koy gulal man nag. man mii ma jël sama courage samay disposition du ma nangu ci àddina laa la wax kuy tudd sëriñ Touba ci sama kanam di wax loo xam ni tegginiwul loolu moom doo am. moom procureur gis nañ benn bataaxal bu mu bind ay kilifaam dafa weddi li nga wax nee na moom euh, waxul dara Serigne Touba la mu fa tudd mooy baatub addiya te ab xaalis bu ñu fa doon tudd la muy laaj xaalis ba nu mu ñëwee ndax addiya loolu nee na moom li nga koy waxal du loolu la wax. waaw daa tiit <laughs> ku ku ku wax musiba mbaba kumba kay da tiit mais yàllaa ko wer lu ñu la wone ci vidéo yi CD yi li ñu wax yow gis nga vidéo mi ngi nii ak man mbir mi dafa mel ni baatiñ ci dugg ndax soo nekkee tribunal kenn waru laa photo kenn waru laa vidéo moo na envoyé nañ ma vidéo bi ba nit ñi juuj di jaxasoo ci biir tribinal bi envoyé nañ ma ko andil naa la ah dafa mel ni baati na ci dugg leneen li ci des su bëggee weddi xoolal audio yu Walfadjri li ma ci boole ñaata la ñu interroger ñeenti nit ñëpp d'accord ci benn kaddu ni maître Babou artu na ko bi mu waxee sëñ Touba mu continuer ba wax lu ëpp mi ngi ni fi jox naa la ko. vidéo ñuy daanu ñoo ci nekk mais wax ji jotul génn li mu wax. Euh, joxut yéen mais bi ci des laa la wax. ojo mm-hmm. ojo yi ma la jox. lu ñu wax. ñooñu ñuy seede ne dafa am lu mu wax Serigne Touba. Oh, mais fi nga yem ñoom foofu itam foofu la ñu yem. voilà mais nett lii. Mm-hmm. wax yi ñuy wax Serigne Touba kenn ñemewu def man dama ko ñeme. mais weddi wu ñu ko. moo wax lii ci Serigne Touba est-ce que dégg nga ñu weddi ko. audio yi nga yore kenn weddi ko. voilà mu leer nañ waa daal. wax na lu ëpp dafa mel ni keroog dañ koo xabtal ndax avant ñuy commencé président la jëkk xulool ah ba ñu artu leen ñu ni nii mu dugg ci musiba ba kumba bi boo xam ni am nay vidéo am na kii par par parloo ku ko bëgg yaa ko yëg wante mbirim sëriñ Touba lu leer rek nga ciy wax preuve yaa ngi fii teg nga ci bët wan naa la ko soo soxlaa jëlal ay copie la ma war a def en tant que taalibe def na ko wax nañu lu tegginiwul ci sëñ Touba murit am na kilifa kilifa gi mooy sëñ mun Muntaxa génn naa waxi ko ba ñëpp dégg ku mu neex nag gëm ku mu neex bañ a gëm mais man def naa sama war a war UMS dañoo dugg ci yëf yi ba sax ñoom euh, ñi ngi ŋàññ saw doxalin nee nañ sax mbir yi danañ ko faf yóbbu ci yoon lan ngay wax ci loolu li ma jaaxal nag UMS UMS boobu nag moo ma bett xam nga lu tax ñu bett ma ñun suñu liggéey ay magistrat ñoo ko yore xam nañu liggéey ni muy doxe waaw même ku jàngul nan nga mën a déggee ñaari nit yu wax yow waxoo keneen ka jóge rek dagg ca làng ka ah nit di watooñ xam nga loolu xel mënu koo nangu ndax même suñu lay condamné tribunal danañ la déglu déglu ki nga amal affaire soog ni diwatooñ noo mën a comprendre ñoo xam ni seen liggéey mooy ate te xamu sax nu ñuy doxalee ñoom daal man waa UMS waxuñoo man kii ñoo man dama yeew rek dégg ni seen kii xam nga ni daa juum tey ngoog ndax kuy mënti doon tribunal suñ lay ate da nga taxaw kee taxaw benn ngoog ñaareel ba waa UMS mais ñoom dama naa ñii lu leen xew dañu bind avocat auxiliaire de justice la loolu amatul loolu xewi na def nañu benn réforme boo xam ni dañ ne avocat ak magistrat ñoo bokk liggéey ba ce sont les acteurs de la justice da nga ciy jox sa wàll moo jox ci sam wàll waa UMS defuñu ko dugg nag ci dossier bi boo xam ni xamoo ci dara mais pour njuumte yooyu moo na ma fii am na magistrat yu baax yu fi nekk de maa ngi fàttaliku benn magistrat boo xam ni ko ñëpp xam jàmbaareem ñëpp xam jubaram xam nga nu ma ko xamee mooy euh, kii yu Touba beneen yi fii waaw bi président euh, Macky Sall jëlee grâce pour Mamadou Wuri Diallo yow xam nga ci dara ñoom ñoo ko teggi teg fële kooku magistrat modèle la mais ñii su dee nii lañu ñu commencé ah duma leen critiquer de ndax magistra ñëpp laa amal jàmm man mii pendant 35 ans may nekk avocat nit ñu xarañ lañu nit ñu am liggéey euh, kii lañu mais ñiy def li ñu ko bind jum nañu. tey kon bu la woolu woon ci yoon ndax comme ñoom ni nga xam wax nañ dinañ ko ni defee di nga wuy waaye dama may wuy mais nag ma ràññee la man ci sama wallu bopp la xew yépp jox naa ko déjà bâtonnier maanaam déclaration yi vidéo yi yépp jox na ko ni ko pare na foo ma woo ñu toog loolu kon sama wàll boobu pare na ñeetam association la ñu am kon du ma wax ak ñoom mais fuñ ma woo ci yoon seede yaa ngi ñépp taxaw nañu ma indi samay seede këyit yi ma yore vidéo yi li ñuy def yëpp loolu la xam nga lu ñu waroon def la magistra boobu tuddee Seydou Diao wax tooxi dooni yu mel noonu jëmale ko ci sëñ Touba ba pare wax ni maa tey du ma dellu ginnaaw lu kooku la ñu waroon a gaaw yóbbu mu jóge fi waaw kooku moom foog naa ni nañ ko yóbbu daal mu jóge fi mën naa am nag laa juum mais li wóor ba wóor maa juum ba pare maa tey. ah loolu nag neexul dégg. bi mu nag moom ah waxu loolu. yow won naa la vidéo yi gis nga vidéo yi ñaar yëpp ak audio yi wolof nee na weddi gis bokku ci loolu daal laa xam ni njuum na juum boo xam ni ah doy na waar doy na waar juum ba pare maa tey munu ma xamel euh, euh, man ak sama wàllu bopp li ma wax démb moom laa wax tey du ma nangu mukk ci sama àddina nit taxaw di jël kaddu gu ñagas di ko teg ci Serigne Touba te du ma wax loolu moom du am. tey ñu dellusiwaat ci dëkk bu sell bi kuréel gu ci mel ne Xuddaamul Xadim ñoom mm-hmm. euh, yëkkati nañ seen kàddu nee nañu yow ànduñu ci li nga wax euh, te déglu nañu kii di procureur la mu wax loolu la ñu gën a gëm euh, seen taxawaay boobu noonu ban jàngat nga ci am yow. aw ci benn jàngat xam nga mooy lan yow xamoo waxoo fekkewoo soo ci dugalee sa làmmiñ lu yàqu yow wala ñoom xamuñu. laaj nañ ah. gisuma kenn kenn laajuma gisuma kenn koo xam ni xamu fekke woo xamoo ni tribunal di doxe ay règle tribunal ni muy doxe est-ce que mën nga cee wax euh, xalaat bu nit mën a nangu mu ngoog fa damay bind président de la république xam nga li tax président daal bi ñëpp xam nañu nii mu mel moom ci Touba mais du loolu. président de la république ci yoon mooy njiitu magistrat yi le président du conseil supérieur de la magistrature moom la loolu la ko yoon jox yéemu fa le ministre de la justice moom tam mooy liggéey te magistrat yi am na benn bërëb boo xam ni ku fa juum foofu lañ lay yóbbu benn section la bu nekk cour suprême ca kaw kon nag su dee coowu magistrat foofu lañ koy defee pare na